What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Some guy. <laughs> yeah, before going fast, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, my town. <laughs> yeah, go my PUBG, Ibrahim Mandao, Mustafa Mane, Dagud from Belgium, Abaka jalo from Russia, his elder is Mela jalo. di ko may Amadou Dame Diagne suma séeri kuma maane di ko may uh, Oumar Fall Nante Kaolack Omar Fall Niaw Sikkim Hmm, Fatoumata Dieng Sall Salo oh, tu vois par la là ñëpp laa xam ne sama gars yi bëggee Malathion Malathion TV yëpp gars bëgg Sonko ñëpp ñëpp ñëpp ba sama gars yi tey dama wax mooy dama wax ci 2,5 milliards yi ñu jox euh, ñu jox artistes yi quoi <laughs> non je ne réconne les artistes yi vous nous procurer du plaisir tu vois euh vraiment euh buñu sañon tay ji ku ñu ku manam ku nekk ci li ngay yëngu rek nga gis sa bop tu vois amul amul dara lu ñuy xébal nit wala dara quoi mais c'est la manière dont l'État gère ses problèmes quoi artistes yi milliards comme si les artistes étaient seuls les les les impactés de la Covid quoi ne concevoir quoi milliards. et pendant ce temps mais route nationale bi amul fait. monsieur le président route nationale dafa may fait. mais 2,5 milliards euh, y a des priorités y a des priorités <laughs> je n'ai rien contre mais les ambulants. gaa yi ñu fekk ci trottoir bi jëlee leen fa nag ñooñu nag ñooñu amuñu ko ñu wayaat amuñu ko ñu màjjaal amuñu ko ñu quoi que l'on puisse dire artiste bi sax ñu may la ko mais ki doon jaay café Touba ci trottoir bi wala ki doon jaay ay ay ay sous ci trottoir bi ñu jëlee leen fu mel ni tëngee ñu jëlee leen ci trottoir bi ah ñooñu lan la dundee 16 heures de quoi ils vont vivre mais ngeen génn di wax seen i wax def seen def Macky Sall pour mu kii mu jox leen 2,5 milliards ah élèves yi ñu par classe ay par classe hôpitaux yi mal équipés ah route nationale bi am ay am ay ay hein? am ay mais ay affaire yu bari yo ji 2,5 milliards ils ko ci def ah. mais tax artistes man je ne rien non artiste ni, mais ça qu'on se dise la vérité quoi amna des artistes xam je me disais que mën leen mën leen ñu artistes yi impact de ah, mais ça se compte au bout des doigts bo né walé né Sidi ah boo ne Wally ne Sidi Diop ah koo ci teg ah ñi des ñëpp ay ay ay Simon mais Simon mën nañu ko autoriser mu musée Simon bu demee ay 4 personnes lay am wala 5 di Fou Malade mën nañu ko autoriser musée 4 personnes 5 personnes lay am di ah ba pare jël seen benn ñu jël seen benn benn benn kii bu fol benn benn benn benn xamoon ni ko idéologie bu fol bu ñëw di seen benn euh, kii ne léegi maanaam euh, gars yi dañuy ñëw dañuy dañuy toog ci kii euh, dañuy toog ci njaganjaay yi di di ay mbooloom fa ah gars yi bu ñu demee soir nit ñi dañuy toog artiste bi du mooy yóbbu kii affaire mooy mooy moo fa yóbbu ko ñoom daal def nañ ko ba ngir jël seen exemple mais exemple dof waxtu dof yoo xam ne mënu ma concevoir mais tu te rends compte Wally di jouer Vogue na fa am bu dee Fou Malade Simon ñooñu mën na leen bàyyi ñu dem parce que day mel ni yaraax

ngeen bëgg ñu bàyyi leen ngeen kii affaire noonu mais soit da ngeen nangu ne feebar bi amul ngeen ñëw ne ñun bu ñu bu ñu ñoo tey wala ngeen dàkku ne feebar bi am na ngeen respecté li gars yi teg ki si frotte si pic mais l'égoïsme bi gars yi am ak maanaam tey ji cuune bi gars yi état bi ñu koy gérer quoi Macky Sall dañuy suñu deux virgule cinq milliards y a quelques artistes qui sont mécontents def nañ seen wax rek mu leen ñoon taxamate ceen gémmiñ quoi te pendant ce temps am na enseignants yoo xam ne ñu ngi toog di wax seen kii correct prime de correction yoo xam ne daaw géej la pendant ce am na ñuy xaar seen i rappel am na ay soldats yoo xam ne ils ont perdu leur jambe leur bras leur pied ak pour pour euh, la sécurité sénégalaise le la ñooñu ñu waxuñ ci ñoom ñooñu boo doon joxoon deux milliards tey nag mais artistes yoo ñu nit ñu nit ba génn bëgg ñëw tey yi jël gars yi en otage naan non dañu war a kii parce que lii su fekkee feebar bi dafa am ni ñu koy xam ne feebar noonu lay wàllee boo jàppee loxee mën na la wàll boo nooyee mën na la wàll mais mbooloo warul am dañu waruñu tase mais bu ngeen di mettre pression président bi président bi bàyyi cuune kilson ñëw ñu ne dañ jox ndàmpaay 2,5 milliards 2,5 milliards yoo xam tey ah milliards ku nekk am ay 100 mille ah arrêté cent vingt mille lu mu leen mënal cent vingt mille bu leen lii bu ñu lu mu leen mënal mënul leen dara mënul leen dara essayez de gérer votre vie du temps ngeen di joué ngeen jàngal économiser di dajale di économiser am yeneen affaire am yeneen créneau ngeen di jaay oto si suuf wala ngeen di ubbi ay je sais pas tabax kër di ko loué wala dara quoi tu vois parce Sénégal da ngay gis loo xam ne tey ji maanaam quelque boo xam ne tey ji maanaam du mën a servir dara état bi quoi day nekk ci ay guddeem day nekk ci ay guddeem soit mu ñëw yor ay millions am di jaay ay deux cent millions trois cent millions am tu vois di fo zéro life am mais bu demee il se trouve fauché ñëw naan état bi dama dañoo dañu seetaan ancien footballeur yi bu dee feccakat dama dañ seetaan ñun dañ seetaan feccakat yi bu dee théâtre kat eh, eh, dañu dañ seetaan eh, fecca dañ seetaan kii waa waa waa théâtre bi bu dee artiste dama dañ seetaan musicien mais yow bi ngay gagné dem ay soirée ay ay cachet vingt millions mais loolu tere woon ngay jël investir waaj ne suba tey ji mën nga xeewi wala suba mën nga tële wala lu mbas mi mën na am loolu tere woon loolu noonu mais lu tax lu ñëw rek ngeen rabattre ko si état bi defe état bay leen ko teg parfois vous êtes fautif parce que buy neex kenn du leen dégg su naqar da ngeen a di solo nit ñi ah un fou malade on a besoin de jouer fou malade yow fooy jouer yow fou malade fooy jouer Simon fooy jouer mais mais vous êtes vous êtes bien bu doon bu doon ah, kii la fonction publique yéen a ngi 60 ans xaw 64 ans un an wala dese IPRES yéen a ngi versé yéen a ngi defar seen papier retraite mais vous êtes plus à il l'actualité faut que ñu leen koy wax fii bu amee artistes yu impacté ay ay bu dee rab bi la ay Akhlou Brick la ay Ngaaka ay Dip ay Samba Peuzzi ñu sont impacté mais tey jii bu dee bu dee mbalax mi la ñuy impacté dëgg ah Sidi Diop lay doon ah benn Sidi Diop benn benn benn Waly Seck ah mais am na si artistes yoo xam ne tey benn Alioune Kassé dafa seen dafa dafa impacté wu ah wala benn benn Fallou Dieng dafa impacté wu wala benn Alioune Mender lu ñuy impacté woo ñun soirée ñuy joué tey jii mën nañ ko tëgg bi di seet leen 2,5 na feneen fu mu xaj nekk ay 100 par classe hôpitaux yi c'est mal équipé tali yi baaxul route nationale bi ngi ne ay ay kamba fi ne xam tant de choses yu ñu war a def amuñu eau potable électricité bi doyul nga gis ñu 2,5 milliards di ko jox pour des artistes yoom ni ñoo rek jox leen ko nii quoi parce que dajale lañ tekk seen i masque di sonal nit ñi non waaye soo gars yi dañu bàyyi loolu quoi c'est que soo waxee tey yàlla kii waxuñu kenn bu mu exercer métier bi fii bu ñu sax ñëpp a exercer métier ku nekk da nga dem mais nag bu dara amee situation am foofu ñëpp a ci war a soumettre président bi warul ñëw tey ji di am benn benn faiblesse naan day ñëw di leen waaye non loolu loolu faiblesse la quoi 2,5 milliards étudiants yi 3 mois ngi fayuñu leen ça fait plus de 3 mois xaw ma 4 mois étudiants yi fayuñu leen mais arrêtez quand même dans quel pays lii mooy lan ah mais c'est décourageant yow da ngay da ngay xool da ngay xool nekk étudiant am ay problème bu jënd ticket am problème muñ paas booy parfois dañuy jógee ay Casamance mais ku jógee Casamance ay mbokkam nekk wala tëb si seen bourse sax la seen parents yi yaakaar pour am benn saako ceeb wala dara kooku fayoo ko 3 mois artiste boo xam ne tey ji am na ay dóoram day way professionnel yi day way Mame Boye Diaw day way képp dund lu ko neex toog un mois kii war a mu commencé tànqal nit ñi am leen ngor waaye bu leen gën a gore am bu leen ambulant yi gën a gore bu leen étudiants yi gën a gore am ah, leen ngor c'est du n'importe quoi ça ah bu dee bu subaa léegi ñoo ñooy jógaat bu war a jógaat kon ah mais fii non non man man ambulant yi laa gën a xalaat barke rasulullah marché bi dimanche kenn ko tijji parce que nee nañ bu kenn tëjee ñoo te ñooñu ñoo yor kër yi ñooy taaba taaba ñooy wàcc di dund di xoolal li angal naan tout artistes yu dem fay seen live dëgg ba sonn si épargne ñu defuñu dara sonal nit ñi ñi am fi ay Malick Simon am ay contrat orange ay 30 millions yu ne boo leen géré woon tey di ngeen am problème ah ay Fou Malade lekk xaalisu terre bi ah xaalisu terre bi lekk nga ko fond culture urbaine lekk ngeen ko ngeen mel ni ay dëmm ah comme des dëmm lu ne lekk ngeen ko wax ne des étudiants sont là ah nekk futur Sénégal fayuñu leen seen salaire mais Macky Sall di sedd di leen jox waru leen jox dara lu leen jox loolu lu leen jox loolu si lan la leen fay jox nañ ko théâtre kat yi passe kiiwul ngeen ba pare ngeen tànqal nit ñu quoi dafa ne yéen vous êtes vous êtes les seuls au Sénégal vous n'êtes pas les seuls arrêtez quand même arrêtez ah y a les écoles privées tey ji ils ont subi ah école privée ils ont subi toog lu yàgg booy jàngi ñu amuñu leen fay dëkk ñooñu ñooñu fu ñuy dundee école privée yi yéen a pañ njariñ école privée yi yéen a pañ njariñ étudiants yi yéen a pañ njariñ ambulant yi non su ma deelee naqara mari sama gars yi du leen ko sama kanam gu ñaaw yu génn non Macky Sall nag ay 2,5 milliards nga may ko mel ni ko mayee 100 000 francs àll bi gars yi di bëgg dee boo yamuñu jot gars yi di jël mbëkk mi ah non mais c'est n'importe quoi dans ce pays